Euh, dañuy ñëw ci euh, brique de terre voilà qui veut dire quoi exactement. Euh, cru ça que mooy euh, loo xamante ni amul euh, benn benn lu ñu ci boole. loo xamante ni acide la dafa mel nii rek nga ne damay lekk poisson cru. mooy poisson boo xamante ni kenn togg ko voilà ah. jën bu ñorul donc lii nag mooy suuf boo xamante ni kenn kenn defu ci benn benn effet. Mhm. donc bét loolu BTC lañ koy woowee mu nekk technique de construction yoo xamante ni technique de construction yu bees la. Mhm. kii la jël mooy kii ñuy defaree taliwaay. waaye damay fàttali béton ah, non non xeer wu ñuul bi waaye xeer bu xonk bi. latérite latérite. Ah. ok merci latérite la ñuy jël. def ci tuuti ciment def ci tuuti ndox. Mm. Euh, jaarale ko ci machine pondeuse bi. mu daal di def ay briques yi nga xamante ni ay briques euh, yu yu yu doy waar. war naa dëgër de. dëgër na c'est économique euh, c'est environnemental. ah moo gën a cher moo gën a mooy cher ciment. un million cinq cent fois ah <laughs> donc euh, moo ko gën a moins cher ah donc on va juste euh, euh, dem kii dalal ki nga xamante ni moom mooy Youssoufa bokk ci kenn ko nga xamante ni xelam dafa màcc lool lool lool ci wàllum BTC mu expliqué ñu bu ñu ñëwee nag très rapidement ñu wax leen lan mooy ngëneel gi njëg yi fu mu toll ak lan moo tax briques yooyu daal di dëgër on y va de terre crue la donc brique de terre crue mooy brique yoo xam ne dañ ko defaree ak latérite Euh, def si tuuti ciment ak tuuti ndox ak tuuti suuf donc moom la ñu jël composé ko ak suñu suñu euh, machines yi donc machine yi dafa am pression hydraulique donc mooy moo tax moo ñu koy tuddee brique de terre crue stabilisée donc euh, pression boobu moo koy mooy tax mu nekk ay blocs yoo xam ne donc gis na tànk expérience bi ñu ci def ñu jëlee benn bloc écrasé ko si brique ou ciment ni muy ni mu ni muy xaree donc brique de terre crue y a que des avantages donc njëkk li yomb na. Euh, temps bi ñuy tabaxee kër yi aussi gàtt na trop ba pare suñu seetee aussi njëg li bi la euh, euh, construction classique di dikkee ak ni la construction en brique de terre crue am na entre quinze et vingt pour cent de différence. Mhm. donc y a des avantages en en BTC. aujourd'hui suñu xoolee si wàllu adduna bi euh, y a ce qu'on appelle le réchauffement climatique donc mu jaaxal ñëpp naka la nit ñi di si trouver solution ba nga xam ne réchauffement climatique dina wàññeeku. Mhm. donc xalaat naa ne tey aujourd'hui su ñëpp jubloo si si changer paradigme de construction dem si si digue de terre crue donc dina wàññi bu baax réchauffement climatique bi parce que tey ñëpp xam nañ ne nu mu tudd euh, dans le domaine de la construction euh, pratiquement dans le monde li muy produit si effet de serre donc ëpp na pratiquement 5 pour cent mm-hmm. donc loolu dafa am solo trop loo xam ne ñu changer paradigme de construction dellu si suñu ay cosaan euh, ba pare boole si tuuti modernité dafa am solo trop Euh, voilà euh, mu ngoog euh, mu ngi doon expliquer brique de terre crue Euh, lii mun na régler ay solution mun na régler ay problème mun na régler ay problème yu bari solution la ci tabax voilà waaw boo boo xoolee boo xoolee briques yi Pape ay briques yu xonk la euh, briques yi suñu maam yi hmm. euh, moom lañ daan tabaxee yenn ci seen ay dëkkuwaay hmm. dañoo jël argile boole ko ak seen ay ay voilà ay ñax yeeg yooyu ñu def ko ay briques pour mën ko di ko di ko tabax léegi nag méthode boobu la indiwaat mais moderniser ko hmm. bii nag xam nga lu ñu lu jëm ci wàllu ci wàllu kii bi ñu utiliser donc latérite bi. Mhm. Euh, presque région au Sénégal yëpp dañoo am latérite. Ah. te latérite bi euh, am euh, jënduñu ko. Ah, ah, donc c' est gratuit. donc bu nekkee latérite bi c' est gratuit da ko kii ko. lay voilà nga lay ko. Mhm. boo ko layee ba pare li ciy génn moom ngay boole ak ciment boole ci ndox dugal ko ci pondeuse bi mu mhm. jox la ay briques mais nag briques yi day nekk brique boo xamante ni day nekk brique mâle. ak brique femelle. voilà bu góor ak bu jigéen donc parce que démb. ba ñu demee defi reportage bi maa ngi doon wax ak ki nga xamante moom mooy Youssoufa Mariga ne ko euh, lii nan la mën a nekkee mu ne day wane juste que ne que ci lépp lu mën a doon mu nekk ci alxuraan mu nekk ci suñu société mal ak femelle mm-hmm. donc c'est important moom la ñuy dajale pour mu mën a am solidifier li nga xamante ni moom mooy lu dem ci wàllum kër gi maanaam brique bu voilà brique bu góor bi bokkul ak brique bu jigéen bi donc bu ñuy tabax kër gi dañuy jël brique bu góor bi bu jigéen bi mm-hmm. daal di koy assembler mm-hmm. euh, donc def ci ciment euh, pour mu mën a pour mu mën a daal di donc euh, defar euh, kër gi mhm. donc briques yi maa ngi koy wax euh, nekk dañ ko def ak terre crue latérite bi lañ ko defaree mais li avantage bi gis ngeen kër gi nu mu mel ni kër gi ñuy wane nii mhm. amul climatisation mais par exemple ci biti boo génnee bu tàngee boo duggee ci biir kër gi kër gi parce que en fait suuf dafay jouer un rôle de régulateur voilà régulateur boobu na mooy tax que ne que par exemple kër yi ñuy tabax nii mhm. avec des ak BTC bi kër gi defuñu ci climatisation donc en terme d'énergie dafay gën a mën a dimbali may euh, ki fa dëkk pour mu bañ a euh, daal di euh, consommer lu jëm ci wàllum courant bu bari mm-hmm. nu muy seddee nu muy seddee ci biir kër gi bu nekkee dañoo nekk ci période du tàng noonu lay tàngee ndugg maanaam ci biir kër gi bu nekkee dañoo nekk période du sedd mm-hmm. donc c'est ce qui fait que donc ces briques là un rôle de de de, de régulateur thermique mm, en plus de cela c'est un régulateur donc phonique yow mi nekk ci biti ak bruit lu mu mënti doon yow doo dégg donc lu nekk ci biir kër gi Cheikh mooy euh, booy utiliser BTC tabaxaayu kër gi dafay gën a. day gën non non dafay gën a gaaw. sa à dire que li ñuy tabax par exemple sur un an sur deux ans yow mën nga ko tabax en trois quatre mois. Hmm. Euh, donc oui euh, pour juste pour wane. yenn ci ay ay ay avantages yi te tamit boo ko tabaxee ba pare jarul nga koy peinture. Mhm. parce que li ñuy wane kon si image yi kër gi peinture ñu ko mais dañu ko rek daal di def benn couche pour mën ko mu mën a briller voilà comme genre booy boo defaree sa armoire ba pare. Euh, vernis dañ ko juste dañ ko vernis pour mën ko may éclat mais su la neexee sax mën nga ko bañ a vernis nga bàyyi ko donc à l'état à l'état pur à l'état normal euh, autre chose mooy booy tabax kër gi par exemple moom mooy revenir beaucoup moins cher que boobu mooy tabax ah, li nga xamante ni moom moo jëm euh, ci wàllu kër normal di ñuy tabax maanaam li ñuy faral di gis teg ay briques dugal ci mm, yenn voilà yak yooyu donc li moom moo gën a donc moins cher man li may reetaan mooy tubaab saay saay dëgg la mhm. lii mag ñi nii la ñu musee tabax ah, mag ñi dañoo mus a comprendre ni par exemple ci dëkk may ma may la ma man tam ma wax seen wax tuuti ah quand mag ñi dañu mus comprendre ni euh, ci dëkk bu tàng la ñu nekk <laughs> ñu yàgg tabaxee ak ban di tabaxee mm. argile euh, donc ñoom suñu soxla ay climatisation mm. mais tubaab bu mu ñëwee yëpp la yàq tubaab moo yàq mbay mi dem ba mu yàgg mu ne moom moo génne bio fekk mag ñi bio lañ daan mbay tubaab moo yàq tabax dem ba mu yàgg mu ñëw indi comme si lii lu bees la comme si lii lu original la fekk fii la fekk baax euh, ci euh, ci suñu mag ñi parce que lii li lii moo ñu mag ñun ñëpp ah et li nga gis ni ça peut aider buñ ci ci tabaxee kër da ngay gis ni doo du tàng du tout du tàng du tout nga xamante euh, euh, pour mën a euh, daal di compresser li nga xamante a pour mën a pour a tabax en fait lii nii hmm. bokk na ci solution yoo xamante ñoom ñoo mën a dimbali pour ñu mën a am ñun ay dëkkuwaay yi nga xamante ni pour souvent dañ koy defee ak hmm. argile ah, hmm. argile mais parce que loolu ñu gën a bëri dañuy def li nga xamante moom mooy une construction classique alors que on a des techniques de construction yoo xamante bu ñu ko defee moo gën gën a mooy mm. moo esthétiquement parlant mooy gën a mooy gën mooy gën a mooy gën a rafet mm. mais leneen lu jëm ci wàllum euh, euh, kon démonstration bu nekkee euh, kii nga xamante ni moom mooy imam mun nañu wan démonstration bi ñu doon def démb dañoo jël benn brique normal donc dóor ko ci brique terre cuite bi biri bi toj donc mi ngi nii moom la ñuy wane nii bon malheureusement euh, image yi dafa kii donc euh, ñu jëlaat beneen brique dóor ko ci euh, ci brique BTC bi. kuy dóor noonu. maay dóor yaay toj. waaw <laughs> ay <laughs> donc après brique bi daa di kon daa di toj donc loolu aussi par rapport à la solidité e je pense que suñu ingénieurs yi fi nekk il faut ñu leen di bàyyi xel il faut ñu leen di may nopp bu baax a baax pour ñu mën aussi dimbali suñu gouvernants yi ñu mën a jot kon li nga xamante ni moom mooy moom moo ñeel politique yu ñu fi teg euh, pour euh, wàllum euh, dëkkuwaay parce que ça n'a rien à voir avec la politique ou bien rien à voir pour di xarab nit mais je pense que ne que genre technique yu mel nii kër boo xamante ni peut-être mën na jaar 13 millions kër boo xamante ni na jaar 14 millions ci loo xamante ni BTC lañ ko tabaxee loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax la suite ce sera dans Sama en début de mois de janvier incha allah déggal loolu moom dëkkuwaay da koy da koy ñoŋal ba mu ñoŋ <laughs> ba mu ñoŋ a ñoŋ hmm? moo gën a yomb normal mu gën a yomb mu gën a dëgër. parce que latérite bi doo ko jënd. latérite bi tubaab bi yàq rek am na latérite ah. donc latérite bi da koy jëlee rek ñëw ñëw ñëw tami ko boo ko tamee ba mu ba lu suuf su sew si génn. nga boole ko ak tuuti ciment. Hmm. boole ko ak ndox daal di koy hmm. def ay briques. Hmm. nañ ñu jàppale rek ba buñ ko yokk ñu nit ñi nekk accessible waaw ah, parce que xam nga ñun moom dañu tàmm bu dara kiiwee rek nit ñi wuti ko rek ñu yokk ko dañ ko wàññi rek bàyyi ko ni nit ñi mën a tabax ñu am dëkkuwaay ah. day nekk lu am solo macha allah en surtout c'est très important merci Dieynaba 10h52